yàlla Mamadu afaadana daa faydan waax mala saadatan yonti yàlla Mamadu fasaasa bi sàkkal xalxa liinan wasidatan fa yaabasa minhum liman umdatan imaamun li rusulilaahi wa awdatan yonti yàlla Mamadu bi yuxtamun zikrun jamilun wa yubdoo yonen bi ñun de Moustapha la ñu yaakaar yomal xiyaamu jàllanoo sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di sant yàlla di julli seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu mbokku téléspectateur u Thiénaba TV ak télévision yi nga xam ni ñoo ànd ak waa Thiénaba Euh, di jiital ci nuyoo bi la xalif général bay Serigne Assane Seck di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko suñu kanam te wéral ko ak lépp lu mu jaboote euh, nuyu njabootam waaye jaar ci moom tamit nuyu euh, xalif généro yi nekk ci réew mi ak kilifa aada yi wàcc fii ci Canaba nuyu Serigne Cheikhu Amadou sekk imaamu ratib bu ba ak ñi mu àndal ci liggéey bi nuyu Serigne Alsane Ñaana sekk chef de village bu ba ak ñi mu àndal ci liggéey bi Euh, nuyu le premier magistrat de la commune muy monsieur le maire Talla Diagne euh, nuyu tamit kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk réew mi waaye nuyoo yooyu yëpp euh, ñu jël rek teg ko ci loxol sëriñ maam Amary Seck mu bàyyi buubu Seck mi nga xam ni tey journée bii nga xamee ni moom la ñuy toog fii di ko wooteel moom la kilifa yi jox ndigal li muy ban journée muy journée culturelle maam Ahmadou Ndack Seck maam Ahmadou mi nga xamee ni en 1869 Euh, ci la jóge woon Canaba Kajoor dem fekki maam Cheikhu amadu liggéey liggéey bu rëy ba 1875 di Samba Sadio ginnaawam nag 1882 mu ñëw sos dëkk bii di Canaba euh, ñu nekk fi euh, di ko donnante di ko donnante donnante baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu waaye donnante li nga xam ne moom mooy diine ji ba tey bàyyi Serigne Assane Seck di xalif général neuvième xalif général bu Canaba Euh, yore ndono li euh, yeesal ndigal li euh, ci maam Amary Seck mu bàyyi buubu ndigal lu njëkk la jóge ci Baye Cheikh Ahmed Tidiane jaar ci ki nga xam ni mooy Baye Serigne Abdou Rahim ñu war toog nag ak comité bi nga xam ni moom moo war a piloté journée culturelle boobu war a am ca Malika Plage ca Dakar journée bi kañ lay am muy samedi le 20 avril 2024 ca Malika Plage ñu toog ak coordonnateur bi muy Serigne Ibrahima Sow mi nga xam ne tey moo jiite comité d'organisation bi kaddu gu njëkk gi moom moo koy yëkkati euh, moom dina wax euh, ci li nga xam ni moom moo aju ci journée culturelle bi ak lan moo ko waral waaye euh, dina wax ci arrivé la xalif général Baye Serigne Assane Seck ndax ñëpp xam nañ ni journée culturelle boobu xalif général bu Thiénaba Baye Serigne Assane Seck moom moo koy présider foofu ca Dakar Euh, bu ñu daanee bu daaneelee Serigne Souleymane Gueye mi nga xam ne tey moo topp ci euh, coordonnateur yor wàllu organisation bi euh, dina wax journée bi li ci aju ak programme yeeg li nga xam ne moom moo aju ca bés ba bu daaneelee góor baax na jigéen baax na soxna Maguette Gueye moom mooy jël kàddu soxna yi nga xam ni jiite na leen soxna Pendelo waaye jiite na leen ki nga xam ne moom mooy madame sekk di soxna Kumba Ba jiite na leen macha allah soxna Aminta ak soxna Farimata sekk ak ñi mu àndal ñëpp. Euh, ci jataay bi dina yëkkati seen kaddu rek bu ko defee soññiwaat ñi nga xam ni ñooy soxna yi ñu bokkal bés ba ak naka la ñuy waaje rek jëm fi nga xam ni euh, moom mooy journée culturelle euh, maam Ahmadou Ndack foofa ca Malika Plage kon kàddu gi noonu ñu leen ko joxe rek noonu lañ koy joxantee bu ñu paree nag macha allah macha allah bu ñu paree ñu daal di yëkkati jataay bi rek tënk li nga xam ni moom moo fi xew joxante rendez-vous nag ca journée bi moo fàttali leen ni journée bi le 20 Euh, avril 2024 la foofu ca Malika plage asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyoo di jiital ci nuyoo bi suñu xalif général Serigne Assane Seck yal na fi yàgg te wér di beral nuyoo Serigne maam Amary Seck muxaddam mi nga xam ne nii mooy initiateur u journée culturelle et religieuse de Thiénaba à Dakar li tax bis bi ñu jub si am importance mooy day quatrième édition bu journée culturelle et religieuse de Thiénaba à Dakar lan mooy journée culturelle de Thiénaba à Dakar d'abord li ko tax a jóg suñu sëriñ maam Amary Ndak dafa taaloon jihaad ndax samp baatu laa ilaha illallah muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu dem ba mu wan ñu ginnaaw suñu kilifa yu baax yi wuutu ko ñun taalibe yi ñu topp ci sëtëm bii di maam Amary Seck yaakaar ni comme jiyaat weesu na ni ñu ko daan defee waaye mën nañoo toujours jiyaat ci yeneen i amin mu ni kon ndakaaru benn yoon ci at mi dana fa taal sébb bi muy sébbu lislaam mu wootewaat yeesal baatu laa ilaha illallah muhammad rasulullah ba nga xam ni message bi maam amari yore woon taxoon mu dem jiyaat imposé ko baat boobu la ñu bëgg a yeesal yeesal message yu kene ba une fois par an moo tax mu initier journée culturelle et religieuse de ba a Dakar une fois par an waa ba yëpp wàcc si Dakar ñu dajeeg taalibe yi dajeeg muxaddam yi dajeeg jullit yi yeesalaat suñu pas-pas yeesalaat baatu laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu képp moo tax journée culturelle jóg waaye journée culturelle dafa am ñaari imp yu important d'abord yeesal baat boobu ma wax léegi waaye itam dafa nekk bis boo xam ne nii suñu xalif général de ba day wàcc nag dakaar ñëw nuyu si taalibe yi saafantoo ak taal yi waaye aussi rencontrer Sénégal délivrer son message une fois par an xalif général Thiénaba ñëw Ndakaaru wax ak Sénégal wax ak Afrique wax ak monde bi pour que message yu Thiénaba bi nga xam ne nii Amary Ndack moo ko porté woon message boobu ñu yeesal ko actualiser ko adapté ko te nag message boobu dafa am importance ren ñu ngi choisir comme thème la paix sociale selon les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ku wax Sénégal fi mu toll nii wax importance paix sociale bu paix sociale amul nu mënuñoo tabax dara moo tax ñu tànn thème boobu sëriñ bi xalif général war fay ñëw délivrer message bi Sénégal déglu ko Afrique déglu ko taalibe yi di ci jariñu ñëpp di ci jariñu ba déwénaat ñu yeesalaat incha allah jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokki àdduna bi mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyee ñëpp di jiital ci nuyoo bi xalif général Baye Serigne Assane Seck yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko euh, di jël nuyoo waa kër maam Ahmadou Ndak yëpp teg ko ci loxoom mu jàllaleel ñu ko waaye di nuyu Serigne maam Amary Seck mu bàyyi buubu mi ñu toog ci suñu wet nga xam ni moom mooy initiateur journée culturel et religieuse bi nga xamante ni ren mooy quatrième édition bi yàlla nañ ci yàlla yóbbu ñu fekkee ak tal barke yonent bi di nuyu euh, coordinateur Serigne Ibrahima saw ak comité d'organisation bi nga xam ni ñoom la ko bokkal ñëpp xam naa damay ñëw rek ci euh, euh, programme bi ni nga xamante ni noonu la ñu fas yéene programme bi tëdde ko macha allah te mooy programme bi ci ajjuma ji lay commencé incha allah bu ñu jullee sant dinañ def xadaratu juma foofu ca place ba nga xamante ni ñu ngi ko tuddee Canaba Malika xadara seexu Canaba bi nga xam ne ñoom ñoo nekk Dakar ci njiital Serigne Babacar Seck wilaaye ak Serigne Mokhtar Seck Rijal ñooñu ak daayira boobu ñooy ñëw taxawee xadara bi macha allah ci ajjuma bi incha allah bu ñu xëyee samedi ci suba gi dinañ wàcce ay kaamil comme nañ ko daan defee euh, ca bis ba ca place ba dinañ fa wàcce ay kaamil waaye dinañ wàcce ay kaamil tamit ci daare yi nga xamante ni daare yi Seexu Canaba yi nga xamante ni ñu ngi ci àdduna bi yëpp dinañ fa wàcce ay kaamil macha allah euh, suñ cu jógee incha allah euh, suñu demee ba nga xamante ni ni une heure jot na ci la ñuy commencé nag di dalal gan ñi nga xamante ni ñi ngi ñi ngi ñëw une ba quinze heures ci la ñuy daral daral gan ñi macha allah suñ ci jógee nag def yëfi yëfi njaween yi ak yëfi cekkeen yi macha allah suñ ci jógee incha allah quinze heures ba seize heures trente dinañ def zikkar comme niñ ko xamee zikkaru canaba ak ibnul muhayib bi nga xamante ne daayira ibnul muhayib bii nekk canaba nga xam ne ñoo koy taxawee ci buntu jumaa ji gàmm ñoom ñoo fay euh, ubbi programme bi nag nekk fa jàng fa ibnu muhayib ba 16h30 incha allah 16h30 ba 17h Euh, ci la ñuy def zikar boo xamante groupe pap Pape Abdoulaye Mboup moom moo koy jiite ak nabiyen yi nga xamante ni yëpp yaakaar nañ Cheikhou Thiénaba ak fu waay mën a nekk soo ñëwee incha allah ci bis ba euh, da ci am danañ la ci jox cër ba nga xamante ni euh, moom lañ la ci jox ci njiitalu pap Abdoulaye Mboup incha allah 17h ba 17h15 ñu julli nag tàkkusaan bu ñu jullee tàkkusaan ba pare nag foofu danañu danañu dugal selil bi nga xamante ni ñoom ñoo nekk jandeer di waa kër maam Ahmadou Ndak ñu def fa benn prestation boo xamante ni kan mooy maam Amary Ndak ak kan lan mooy ay jaar-jaaram macha allah suñ cu jógee foofu dinañu dugalaat tamit Pape Abdoulaye Mboup moom tam mu defaat euh, prestation animel taalibe yi nga xam ne ñoo fa nekk euh, ba ñu kontaan macha allah suñ cu jógee nag panel bi maanaam conférence bi moom la ñuy moom la ñuy dugal ñoom ñu def ko ñi koy def mooy euh, professeur Souleymane Dia ak ñi nga xam ne ñoom la ko bokkal docteur Daouda Diop professeur euh, Mouhamed Lamine Sarr ak ñi ñu ko bokkal ñu fas yéene waxtaane nag euh, comme ni ko coordonnateur waxee léegi la paix social dans l' enseignement du prophète euh, sallallahu alayhi wa sallam incha allah c' est 18 heures 30 ba 18 heures cinq ñu defaat zikkar animé yee taalibe yi nga xamante ni ñu ngi doon xaw a gaye gaye ngi tuuti incha allah suñ ci jógee 18 heures 45 ba 19 heures 25 nag ci la ñuy dalal nag ñi nga xamante ni ñoom la ñuy rendre hommage Euh, jox leen parole ñu sànni ay kàddu macha allah euh, suñ ci jógee nag julli nag timis buñ jullee timis nag teeru xalif général Baye Serigne Assane mu agsi nag ci tànt bi incha allah su agsee nag ñu bàkk ko comme nañ ko daan bàkkee euh, toog déglu nag parrain bi ak marraine bi ñoom tam ñu joxal seen kàddu suñ ci jógee nag ki nga xamante mooy initiateur bis bi sëriñ maam Amari Seck bu Baye Boubou foofu lañ koy joxee nag kàddoom moom mu sànni ay kàddoom su paree nag ñu jox xalif général mu defal ñu ñaan waaye loolu lépp nag euh, bu ci jàllee ñu ngi ci woo taalibe yi nga xam ñu nekk Sénégal yëpp di ci woo fédération daayira yi fédération nationale des daayira Tidiane bu Canaba bi nga xam ne Serigne Assec borom ndigal moom mooy responsable moral di woo fédération départementaux yëpp yi ci Sénégal ñu ngi leen di waaye nag rawatina fédération Dakar bi nga xam ne Serigne Maguette Diop moo ko jiite di woo daayira yi ci bokk yëpp daayira ci la daayira Thiaroye daayira Pikine daayira Yaraax su ma limee damay jum waaye daayira yi nga xamante ni ñi ngi nekk Dakar yëpp ñoom ñooy dalal gan yi ñi ngi leen di woo ca Malika Plage à de de ci suba incha allah ñu ñëw ànd ak ñun euh, pour mën a mën a mën a daral gan ñi. loolu daal mooy li nga xamante ni mooy programme di woo nag tamit euh, ñi nga xam ne ñoo nekk Canaba muy euh, groupe ahlu cheikhu Canaba ñu ngi leen di woo jël nuyoo bi woote bi teg ko ci loxo Baye Serigne Diop. di woo kuréel yi nga xam ne ñu ngi ci Canaba yëpp ndax sargal maam Ahmadi Ndaag wala journée culturelle maam Amari Ndaag lañ wax. te maam Amari Ndaag nag ñun ñëpp ñoo ko bokk rawatina nag ñi nga xam ne ñoo sant Seck nga xam ne seen maam la ñuy sargal. waaye nag du ñu wax ba daaneel nag euh, te euh, woowuñu tamit nag waa caareen ndax ku ni maam mari ni yaa abu saar ni yaa abu saar maam baakar saar waa caareen soxna gay saar ngi ni fi moom moo leen fi teewal ñu ngi koy woo tamit di woo waa caareen yëpp waaye di woo wàcca na ba yëpp euh, kàddu yooyu mooy li nga xamante ni ah moom lañ doon dugal rek ci organisation bi incha allah di ñaan ñu fekkee ak tal barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di woo tamit waa àndu démb ndax ñoom sax duñu leen woo ndax borom bis bi waaw àndu bu ñoom ñooy ñooy maam amari maam amari ñoom ñu ngi sant ñëpp gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di balu àq ñëpp di baal àq ñëpp. di baalu àq ñëpp ci weeru koor wi ñu génn di ñaan liñ ci jàmm yàlla yàlla nañ ko yàlla nangul. di nuyu papa bu mi borom kër gi ak maa abu di leen ziyaare bu baax di leen ñaanal gudd fan ko ànd ak wér. di nuyu sama xalifa kër maam Pape Mor di ko ziyaare bu baax. di wax nag ci kàddu soxna fëri ndax bu toogee sama wet warumaa wax ndax mooy sama mag mooy sama sëriñ ak kàddu jobe dem mi toog ndax ñoo fi mag ci jataay bi di dugg nag di wootee ci bis bi ndax bis bi bis bu ñu ñor la te ñun képp ku mën a mas woote rek buñ la wuy jiwul ba du am xorom moo tax ku woote rek wuy ji nañ la moo tax bu ñu wootee ñu bëgg ñëpp wuy siñu bisu maamari bi nag bis bu ñu ñor la pennaa ngi nii toog may waxaale ci kàddoom ak gay amintaloo nday sek ku lim juum wala nga desal di woote ci kàddu soxna kumba mi toog di woo wàcce na ba gépp nag di xamal ni képp ku ñu mën a sa lebal ñi ngi bëgg nga ñëw fay ñu ci suñu bisub rakk ji di suñu doom di suñu rakk di suñu xarit di ñaan ci yàlla yàlla nañu yàlla eggaleel te mu ànd ak sutura ak teraanga kenn ku ne loo ci yéene ci teraanga yàlla na la ko yàlla defal ci barke Cheikhou ba di kontaan bu baax nag ci woote bis bi di kontaan ci fekke gi ñu ko fekke woon di yaakaar ne dinañ ko fekke waat yàlla nañ ko fekke yàlla bu kenn wuuteeg di wocce na ba gépp nag ku lim jum wala nga desal mais woo nañ ñëpp mbootaay yëpp woo nañ leen regroupement yi ñëpp woo nañ leen di woo waa diaspora bi ñëpp ñu ngi leen di woo na ñëpp ñëw ku mënta teewit na nga teew ndax bis bi rëy na bari na ay fere bari na luñ ci war a def ku mënta teew daal na nga teew ñoo ngi woo ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm kenn ku ne li nga ci bëgg a def yàlla na la yàlla may loo ko ci defee ci barke Cheikh. Euh, mbokku jullit yi euh, mbokku taalibe yi kon euh, bis baa ngi noonu muy journée culturel maam Ahmadou Ndack Seck ñu war koo def foofu ci Malika Plage samedi le 20 avril 2024. Euh, ñu wax leen ni leen ci terrain cité Seydina Limamou Laye euh, Malika Plage euh, foofu lañ koy defee ñu ngi ciy woo mbokk julli di yëpp woote bi ñu ciy jiital Baye Serigne Assane Seck comme ni ko mbokk yi waxee waaye wàcc ci taalibe Cheikhu Canaba yi wàccu ci mbooleem jullit yëpp macha allah di leen woo ñu àndandoo rek dem foofu nga xam ni moom mooy Malika Plage def fa journée culturelle maam Ahmadou Ndak Seck ñëpp xam nañ ni premier édition bi deuxième édition troisième édition ñu ngi ko doon def foofu ci terrain Maguedane euh, ci loolu nag euh, ci ndigalal kilifa yi euh, ñu ngi sant di gërëm waa pikin yi nga xam ni tey ñoo daan dalal Cheikhou Thiénaba ñoo daan teeru Cheikhou Thiénaba ñoo daan ànd ak maam Ahmadou Ndak Seck bu bàyyi sëriñ buubu Seck di def journée culturel boobu waaye ñëpp xam nañ ni ñaanoon nañu kilifa yi tamit ñaan ñaan daara joo xam ni daara ju yaatu la ca biir Ndakaaru Euh, ñaan googu nag moom la yàlla nangu ndax loolu moo yóbbu euh, sëriñ maam Amari Seck mu bàyyi buubu euh, ca Malika plage mu am fa daara am fa kër gu yaatu macha allah moo tax nag mu déloger li nga xam ne journée culturelle bi yóbbu ko foofu ci Malika plage di ñaan yàlla rek ñëpp agsi fa ñaan yàlla gën a saawaanal mbir mi baawaanal ko ci barke Cheikhou Thiénaba yàlla na ko yàlla def macha allah bi. Euh, parrain bis ba Mame Pathé Diagne Mame Pathé Diagne nag bu ñu ko waxee fii ci Thiénaba euh, macha allah xel dina dem ci monsieur le maire euh, premier magistrat de la commune de Thiénaba waaye xel dina dem ci sëriñ Ahmad Dame Seck sëriñ As Diagne ak soxna Farimata mbay ak soxna ak sëriñ Yoro Diagne ak ñim leen bokkal waaye damay wax sax ni suñu caméraman bi jàkkaarloo ak ñun muy Talla Diagne tey sët la ci maam ma Pathé Diagne kon nee nañ ñoom ñëpp ñu ngi woo seen i mbokk di woo seen i xarit ñu dem ci journée bi nga xam ne macha allah moom la ñu parrainé seen maam maam ma Paté Diagne àndoon na ak maam Ahmadou dem Samba Sadio euh, keneen ki mooy marraine yi euh, soxna ta Sow ak soxna Sophie Ndiaye Silla nga xam ni Dakar la ñu nekk nekk ay soxna yoo xam ni soxna yu baax lañ euh, ñoom la ñu yaayale bis bi waaye dinañ ci ñaanal muy rendre ci hommage Baye Serigne Talla Xaar Seck mu maam Ibra Penda Seck mu maam Ahmadou Ndak Seck macha allah di ci rendre hommage maam Ahmadou Bamba Euh, muy mu xaddam mi nga xam ne mu xaddamu Seexu Cana la Cana ba la moom tamit dinañ ko ci euh, rendre hommage waaye di ci rendre hommage euh, maam Sayer Ñang Mama Sayer Ñang nekkoon bilaal fii ci grande mosquée bu Seexu Cana ba di maam ci élagie Hadji Ndiouga Mbeng mi nga xam ne tey moom mooy jiite communication ci journée bi moom tamit dinañ ko ci rendre hommage waaye Oustaz Ibrahima saar dafay delluwaat rek caareen macha allah moom tamit dinañ ko ci rendre hommage Euh, ci loolu nag maam Amary Ndaak bu Baye Serigne Boubou sekk nee na euh, mu ci ànd ak journée bi euh, képp koo xam ne rek bokk na Mirina Sarr macha allah ànd ak Baye xalifa Sarr ànd ak ki nga xam ne mooy Serigne Alpha Sarr waaye ànd ak El Hadj Ngagne Demba Sarr porte parole di xalif général waaye ànd ak yaayam muy soxna Abu ak ki nga xam ne mooy waajuram muy Baye Boubou Seck ñu àndandoo rek ci journée boobu ak Serigne Pape Seck Mourtada di imam ci grande mosquée bu Canaba. waaye journée boobu dinañ ci tamit rendre hommage Serigne atu jenn Serigne Atou Dieng bu ñu ko waxee xel dafay demaat ci daayira nuja baaw bi nga xamee ni tey képp koo xam ni sikarkat la ci biir Thiénaba daana ànd ak ñoom ñoom dinañ jóge yaraax macha allah euh, mu nekk programme boo xam ni euh, seen fukki loxo ak juróom lañ ko jëlee waaye maam euh, yëgul njoon nga xam ni caaro yi la nekk nekkoon kilifa dina ànd ak waa caaro yi yëpp ànd ak njobootu maam biram maar bu nekk caaro yi macha allah moom tamit bokk na ci ñi nga xam ni euh, ñoom dinañ leen ñaanal waaye sëriñ Ngagne Diop mu xaddam bu mag ba nga xam ni moo nekkoon Pikine euh, moom tamit dinañ ko ñaanal ci bis bi ndax euh, sëriñ maam Amary Seck mu bàyyi boobu dafay jël mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak mag ñi démb ak barki démb bu journée culturelle bi ñëwee rek ñu fàttaliku ci leen ñaanal leen bu ñu xëyee ci suba gi nag li ñuy njëkk def ànd ak daara yi comme ni ñu ko daan àndee ñu jàng alxuraanul karim bu ñu xëyee macha allah dinañ continuer njàngum alxuraan bi ànd ci ak ñi ci daan àndal bu ñu demee rek ba bàyyi sëriñ Assane ñëw xalif général ñu jàng xatmu bi euh, bu ko defee rek euh, daal di leen di yéene nag ñaan yëpp macha allah yal na yàlla nangu euh, ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam programme bi bu ñu xëyee fii ci Thiénaba képp koo xam ni rek pare na pour dem ci programme bi bu xëyee 9h le car yi di départ fii ci buntu kër baay boobu sec macha allah kon li ñu leen di wax rek mooy sañca ba jekk macha allah bu ko defee ñëw. Euh, dugg ci kaar ñaan dem ak jàmm ñëw ak jàmm paas yi gratuite la euh, macha allah ñu ngi wax ni kon kaar yi taxaw na waaye lépp gratuite la dem ak jàmm ñëw ak jàmm ci barke Cheikhou ba yàlla na ko yàlla def ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ca kàddu gu njëkk ga euh, déglu nañ Serigne Ibrahima saw mi nga xam ni mooy coordonnateur bi wax nañu journée culturelle boobu lan mooy cosaan li ak lan moo ko waral ak luñ ci nomm waaye wax na tamit ci ñëwuk Cheikhu Canaba Baay Sëriñ Assane Seck dinañ ko teeru ak nañ ko daan teeroo dëmb ak barki dëmb macha allah bu ko defee rek mu ñëw euh, ñaan bu ñëwee bu ñëwee joxe message euh, wax nañu thème bi ñu war a waxtaane yooyu yëpp macha allah waxtaan nañ ko kon euh, ñuy ñaan rek kilifa yi kon macha allah yal na yàlla yóbbuñu ci journée bi ak jàmm Sëriñ Souleymane Gueye wax na ci journée bi naka lay demee programme baak la ciy tourné ak euh, tembaak yeneen ak euh, ñim ci woo muy euh, ñi nga xam ne tey mooy daayira yeeg ñi seq ñi muy seqal canaba waaye du ñu fàtte waa canaba sekk famille bàyyiwuñu benn famille ñu benn njaboot waaye bàyyiwuñu benn dëkkandoo ci biir canaba bàyyiwuñu tamit dëkk yi nga xam ne ñoo wër canaba muy kër Maysa muy xay muy canaba gaar muy kër Mamour muy kër Magey Touba Gueye Aneen bàyyiwuñu cawaare bàyyiwuñu tamit benn dëkk boo xam ne dëkku Seexu canaba la nga sori wala nga jige ak foo man di nekk ci réew mi euh, sëriñ maam Amary Seck mu baay boobu nee na mu ngi lay woo ci journée euh, culturelle maam Ahmadou Ndack Seck thème ba la paix sociale dans l' enseignement du prophète moom la ñuy waxtaanee euh, macha allah ki ñu koy waxtaaneel mooy oustaz Ibrahima Sarr dina ko ànd ak professeur Souleymane Dia ak boroomi xam-xam yi nga xam ni ñoom la koy bokkal. ma fàttali leen ni samedi le 20 avril 2024 ci terrain cité Seydina Limamou Laye bu nekk Malick Plage di ñaan yàlla yal nañ ci yàlla yóbboog jàmm. ci barke sedina Mouhamed sallallahu alayhi euh, ñu ngi àndoon ak caméra yi ànd ak Talla Sarr ci Thiénaba TV ànd ak Mar Diop Samsu TV ànd ak euh, Talla Diagne euh, Thiénaba 24. Moussa Ndiambe Gueye moo nekkoon ci waxtaan wi Baye Ndiouga Mbengue ci réalisation bi Alpha Ibrahima Sarr ci régie bi jàmm ak xéewal ak sutura yàlla def ko Moussa Wane baawaan ci Thiénaba ak li ko wër asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Maguette amiin tante Maguette amiin amiin amiin ya allahuma amin ya rabbi nangu leen ñaan Serigne Mamor Seck mu bàyyi taala xaar mooy ñaan amin amin ya rabbi ngi dend ak Serigne Bamba Ñang àndu démb sëriñ Mame Amary Seck mu woote bis bi alaaji Makura Mboob alaaji Ibrahima Sow Serigne Souleymane Guèye ba tey àndu démb soxna Gaye soxna Maam Fëri soxna Maguette soxna Jobe Dem soxna Aminta